waaw salaamaaleykum waaw soxna ñu ngi leen siyaar. ñu ngi la koy delloo kooku jàll. <laughs> waaw waaw di siyaar gars yi yëpp rek di siyaar ñoom Pelaya di siyaar ñoom Saa Touba di siyaar gars yi dugg ñëpp rek. ñu ngi la koy delloo. di rafetlu kàddu fi bi yëpp xam ne Sénégal ñu dox ba kenn mënu ko waxal ñaar ñëpp bëgg Sénégal moo ñu tax a jóg. dëgg la. waaye procureur bu dee mi ngi sama kàddu na bàyyi jàmbur mu dem ñibbi. Hmm. gis nga Sénégal yi nañ bàyyi Sénégal yi naxee bu ñu bu dee nag dañ jox réew mi nag comme que ñoo yuuxu ñu ne ñoom Sénégal ñu fal leen ñu yuuxuwaat ni député la ñoo am problème mu député bu ñu leen wootee député yi ñu jox leen député yaakaar ñu ñëw di jàpp ay doomi jàmbur foofu dafa dire que le mal ñii di ñoo dem na la dëgg booy jàpp nit da ko jàpp dëgg mhm. Moustapha Diakhaté li mu wax moom ñëpp moom lañ wax xam na ni Sénégal képp ku ànd sa xel nga nekk nit war a di voter Pastef mhm. parce que nañ wax dëgg parce que premier ministre boo xam ne ñëw na wax ko Ousmane moo ko ñëpp di ko moo taxaw fi Dakar xaw ma nu mu arena la ñëw taxaw naa dama doon nax Sénégal yi dara dal ma def ma woon de la faim dama doon dama Sénégal yi kon li quatre-vingt-sept personnes yi dee kon moom da doon naqar ñu faatule Ousmane Sonko problème mooy ñi dee la ñu doon naqaral maa ñi xam seen doom yi dañ rey moom la Ousmane Sonko doon naqaral ndax li taxoon seen doom yi dee maa toon tey di wopp wopp ndax seen doom yi seen doom yi génn ñu rey leen dafa am loo xam tey bu dee dañoo war a xool dañuy xool li nga xam mooy yor Sénégal li wax dëgg mooy président Diomaye Faye dafa waroon dàq premier ministre bi premier ministre ko kaso dem àtte ko ci loolu parce que mooy yoon nan wax dëgg parce que am na xam bu ñu ko dee wax bu dee lu waaye wax nu jàppale ko premier ministre kaso bi la waroon fanaan fa la waroon dëkk moo fi wax lu kenn mu wax moo fa dem fu kenn mu sa dem te noo ngi nii àtte ko ci ay ari caara noo moom ni ko kii moom mooy jàmbaar moom moo baax léegi ki def lu bon def lu baax tey moom ñoom la ñuy kuy waxal yàlla góor gi xam ne de yàgg naa xeex démocratie képp kuy waxal yàlla dëgg la tax a jóg nii la Moussa moom baa Macky Sall di jox danaan dal ci kaw Macky Sall bu ñëwee jox day dal ci kawam et puis démocratie lay xeexal da bëgg démocratie dem dem dem mais leen neexu ba ne may démocratie Sénégal mu ngi dellu ginnaaw démocratie Sénégal mu ngi dellu ginnaaw ñun fan la réew mi jëm réew mu xam tey réew maa ngi méttee méttee méttee ba nit ñi bëgg a dee wala ñu war ñoo dimbali bis bu ne procès procès procès procès mois de procès chaque jour ñu andi diw tribunal diwa nga tribunal diw nee na Ousmane Sonko daa lekkul ceeb diw nee na Ousmane Sonko dëwlin lay diwoo diw nee na Ousmane Sonko du melenu loolu la yooyu yéen a nekkee projet projet mais nañ changé procureur na président ndax procureur bi bu dee lii moom bu dee lii dañu fal mm-hmm. du ñu andi ay nit ñu andi ay nit ñu mën a liggéey ñu andi ay amul benn projet bu am njëriñ boo xam amul benn Sénégal benn amul benn projet bu amal wax dëgg boo war a projet da ngay war a projet boo xam ne ëllëg Sénégal dañ si am njëriñ mais diw yaa wax lii lu tax nga wax lii diw war a wax lii yaa wax lii boobu léegi huit mois lu mat huit mois ci leen nekk tey doo dégg mu ñu wàññi leen ceeb doo dégg ñu wàññi leen pétrole doo dégg ñu wàññi leen gaz doo dégg ñu wàññi leen dara lu ñu sonal nit ñi ay dañoo projet projet projet projet nañu dimbale seen projet yi ñun sonn nan bu dee dañu may fay bu dee yaa ngi dina ma gaz dàq premier chaque wax la ko dàq ñu premier amul xam Colobane de ñu bëri naa ay jumaa yi mooy Ousmane Sonko jumaay fay daa amul jaaxal dafa xamul fu mu jëm jumaay fay ñëw àndal boppam jumaay fay ñëw def ci jumaay président gars yi Sénégal yi ba tax mu gagné jumaay nit ñi Sénégal yi ba tax jumaay lépp loolu Ousmane Sonko pexam jubam ko jiitu ñun xam nañ lépp bàyyi ñu ñëw di nax Sénégal naan Ousmane Sonko mooy diw diw mooy diw c'est pas vrai nan weccantey jabar bu dee loolu la bu dee mooy diw mooy diw nan weccantey jabar nan waay ñu nekk fi ndax Sénégal yi ñu leen leen a jox pour am réew lañ leen jox joxuñu leen joxuñu leen ab dëkk réew nag bu dee mënuñu koo gérer nañ ñu ñu démissionné joxaañ mu ñu war a génn wax ay loo xam day avancé Sénégal mais ay ko di ñëw naan bàyyi jàmbur diw ak diw bàyyam ne diw bàyyam ñu ñu ñëpp ñu ñuy woote ñëpp ñu ne maa xam ku woote pour bëgg Sénégal wala bëgg sa moo tax nga dugg di woote mais du góor xas pour ni bëgg Ousmane Sow tax ngay xas nit ki nit ki Ousmane Sow même boo Ousmane Sonko ba mu nekkee premier ba léegi le pays va mal dara doxul lépp a bloqué loolu la Sénégal yi war te ku dugg loolu nga war mais ñu fal premier ministre ba amul xam-xam premier ministre xam mënut a gérer sa maire Casamance gi mu newoon maire tey ñun dee nañ jumaay fay na yow dimbali te yàlla tax bëgg sa waa ji bëgg nga ko te ñëpp xam ne bëgg nga def ko def mu toog sa nga yéen ko yéen mu yóbbu ay lettre waaw a yóbbu ay lettre comme que loolu moo fi gën mais du poste polémique moom ndax fa di ndax fa jëlee wala muy bu ko sax sa sa asaan mu toog fa. jàll kon mais polémique dañ ko jox ko am xam-xam. jàll ah. ma kon projet bi gëmuloo ko. allo. jàll waaw ma ne. waaw ma ne kon projet bi gëmuloo ko. waaye da projet daa am ba muy gëm projet xaaral loo am ngay gëm projet daa am ba koy gëm <laughs> yow ngaa gëm projet yow. <laughs> projet xaaral am ngay gëm barki yàlla projet amul leen wax dëgg projet amul de nax nañ ñu rey dee nañ sa sama xarit la nax sama classe saatu waay sama waa ji maa koy ziar ñoom lañ ndax waaye kay projet kay amul boobu ñëpp xam dara amul projet daa amul sa pep projet amul li projet amul kay Adji Sarr kay mooñ tooñ Adji Sarr ñëw rey ñu ban dee Adji Sarr maa koy remercier nag daan naa ko jàppale amit Adji Sarr rey nañu de moo ñëw ne du waa ji géej viol waa ji Sénégal yëpp jóg jàppale Ousmane dañ koo tooñ Ousmane Sonko moo gën nii Ousmane Sonko moo leen gën tey bu sama yaay waxoon te Ousmane Sonko wax damay wax def la Ousmane Sonko wax bu sama sëriñ wootee du ma dem sa sama sëriñ woote fa Ousmane Sonko war naa dem tey mu ngi ni rey nañ ban dee nag projet dara amul dara ne dara dara projet bu ñu wax dëgg rek amul dara yi baax maal dara du dara de. gerte kan ah. gerte gi daa baax. gerte gi maa nañu ko sa kilo mille franc xanaa dañoo gis gerte ba koy jël xanaa bu dee gerte doy jënd gerte gi baaxul man béykat laa di soxna si man man sama maam yi béy leen xam sàmm lu leer laa lay wax de hmm. soxna si. waaw man tukkee ma tàkkaleeg bay rek man tukki mu ma tàkkaleeg bay tukki bu doon tukki man baykat rek la xam tukkee ma tàkkaleeg bay. Hmm. waaye dama la gerte daa amul ba koy jënd bu doon jar kilo mille franc amul amul gerte amul. amul. gerte moom ndax ndax ndax gerte gi ñu joxe produit bu gerte bi bu ñu joxe baaxul. gerte bu bon la leen leen joxe. gerte boo xam ne bu waree meññi fukki doom ñett ñett doom lay loolu moo fa am ah. hmm. Sénégal ñun ñëpp xam ne le pays va mal dara doxul ñoom luñ dugg luñ laal mu yàqu. ndax dañoo am seen seen kii bi dafa amul bayre gis am réew boo koy jël da nga koy jël bayre jël ko loo xam ne xéewal la ñu xol yi sedd mais bi nga jël réew mi xol yi tàng nga jëlee réew mi loolu dañu foog Sénégal di si bàyyi xel ah. hmm. parce que Sénégal boo seen i wooteel ñee pour am bëgg réew mi am jàmm doo nga tax nu vooteel ñe pour dina xeex bi dafa bëri woon taal oto yi bëri taal océan ci bëri ñu ñam leen Macky Sall li mu def maa ngi remercier Macky Sall foofu li muy bon yëpp maa ngi koy remercier li ma koy mer yëpp ndax Macky Sall da doon yee Sénégal yi comme que day mel ni wan lu baax ngeen dof dof lu di taal ay audience di raylu ay doomu jàmbur di taal ay këri jàmbur léegi xaama jox ñi nga xam ñu xam-xam Macky Sall jox ñu ko na jox jox ñu leen léegi bi mu leen joxee dara duxul tey ñun tey xam ne bu Macky Sall ñëwaatoon tey la Sénégal yi xam ne tey Sénégal day gën a naat su Macky Sall ñëw tey Sénégal yi ñu ngi jooyaat Macky Sall kuy waxal yàlla kuy nit nga bëgg lu baax xam ne yaa ngi jooy Macky Sall ndax Macky Sall mu fi nekk yaa ngi dégg projet milliard demande plan émergent demande tali dina takk Ila Touba dëkk ba moon Casamance dañ fa def ay ay ay pont dinaa ñëw nangam Guinée Sénégal yëpp tali Touba lépp Ndar nga dem ba Fuuta lépp Macky ñëw liggéeyal ñu ko Sénégal lépp ñu ni non non Macky li mu liggéey baaxul Ousmane Sonko am na xam-xam ndax Ousmane xam-xam bi am mooy xam-xam mu dem si jigéen ñi surboté kooku lan lañ jënd rek ku ñu indi xam day defar mu réew léegi nag mi ngi nii nag léegi ngi yàqu na réew mi doxaw doxul demul dara ñu andi ñu dara ñu andi ay projet naan ay diw moo wax nii yëg diw moo ne ko votal nii yëg diw moo ne ko ñun waxuñu loolu nañ wax kilo ceeb trois cent bu trois ñu fanweer courant bi trois cinq mille ñu defal ko deux mille mhm. ku am facture ndax ñun am nañ ñun pétrole ñun suñu pétrole bi lan njëriñ la am Sénégal léegi pétrole bi yor ban njëriñ la waaye ku dugg nañu wax projet Sénégal yi waaye dañ bàyyi ay diw mu wax li Ousmane ba ñu doon wax ne Sénégal dem avancé lañ bëgg damaa bëgg bépp auditeur même ku contre bu duggee na wax réalité Sénégal pour Sénégal avancé même boo àndee Ousmane Sonko nga ne Ousmane bëgg nañ Sénégal doxal lii mais waxuñu ñu nekk di saagante amul njëriñ da war a ku dugg muy man muy keneen nga wax li nga xam te mooy njëriñu Sénégal nga ne Sénégal lii manqué ni te Sénégal ku yàlla xam ne tey jii lépp pays va mal dara duxul lépp a bloqué te ñu ngi jëm si yéen ah mbaa yéen a ngi pare yéen it bu ngeen toj leen yéen ñëpp de. lan la ñuy pare. mbaa xam ngeen la mbaa pare nga yéen ñëpp. Hmm. sud yëpp ci lañ jëm de bon kay bàyyi ngeen ànd ak Ousmane Sonko rek wala àpp ñu toj leen ah bàyyi ngeen seen problème moo dem <laughs> bind Pastef bind si def si loxo bi Pastef <laughs> moo fi tere kat ñoom quoi dañoo fi ne dara dox ah. hmm. dictature commencé na de dictature yaa ngay bëgg a commencé de. dégg ngeen ko kay presse bi day benn côté daal naa si ànd ak ñoom maa ngi kontaan ñoom bu baax a baax a baax a baax ndax ndax nit ki bu defee lu bon nit am na fu defee lu baax. mooy étudiants yi xam noo ne Casamance du ma nopp di ko wax. Mm-hmm. kon tëj ànd naa ci kontaan naa ci nan leen yar am réew woo ñu kenn ngay dox ñax di taal wala di yàq. Mm-hmm. nit ki mën ngaa kaas sa doléance mais waroo di yàq réew mi li xam te ni noo ko defar sa baay ko sa maam defar ko ay nit a dem daan seen dool dem wuti xam-xam dem bitim réew dem ñëw andil leen ko. ngeen war a jàng xam-xam ñoom fa ngeen a jàng xam ngeen di ko taal di taale oto ko wax dañ leen a war a yor dañoo war a jàpp étudiants yi xam tey noo taal seen bàyyi fay loolu nga xam moo fal moo war lu yor man sama doom bi nekk foofu wax naa sama doom bi nekk université wax naa leen ko de hmm. nee naa ne ku ci taali fi jàmbur ndax yéen réew mi dox na ngeen ne votel ñi nga xam tekkuñu dara na ngeen xam ñoom ku ci taali la jàppee sama néew dalee sa kasa billaay wallaay samay doom sa loolu laa leen wax na lépp tegu si yoon am réew na tegu si yoon mais lu salaamaaleykum commencé nga taal salaamaaleykum loo gis taal te li maa ngi ciy remercier ñi tëj eh, université ba te ñi leen ñe def loolu am na xam-xam Ousmane Sonko da changé réew mi bon votel ko kon fi kenn dox ñax man rek maa war a dox ñax mais kenn warut a dox ñax jërë leen jëf wa salaam waaw waaw dégg nga loolu <laughs> jërëjëf Diallo <laughs> <laughs> ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom ab jàllo Diallo 77 810 90 90 mais yow Sonko mooy jomaay yow li ngay wax Diallo nii tamit Diallo de bu la fekkee fii